laa ilaaha illallaah ilaaha illallaah barakatu euh, di xalifa Cheikh Mouhamed Lamine Bara ji di ñu ñun ay dong lañ rek loo wax rek la ñuy wax <laughs> waaye xalifa gi yàllaa ko def <laughs> ñëpp ñëpp bëgg ci loolu nag Mbàkke di ñaan yàlla mu yàgg euh, ñëw nañ fi tey jii ci ndigalul euh, président de la république ngir seet si màggali ak liggéey bi fu mu toll fan yëpp ñu gis yëf yi ni nga xam ne noonu lay doxe sëñ Cheikh Thioro ànd ko ak gouverneur ak préfet ak sous préfet tey mën naa ñëw seet si la nemmeeku ndax bis bi day bis boo xamante ni bi da ko da ko yitteel ñor ko loolu moo tax mu ne naa jiitu si ñu xool ko ndax délégation bi bu si àndee suba ci timis ci li ñu ñëwaat ngir siyaare si la indi li nga xamante ne bii mooy kàddu yi nga xam ne moom la président indi. waaye lii dañoo jiitu si woon rek ngir dayo bis bi ak màggaayu bis bi ak yitte ji nga xamante ne bii am na ko ci kër gi ak li nga xam ne seq na ko ak yow. te loolu jóge ca sa wéjur baax wa di Cheikh Sidi Maxtaar nga xam ne kenn du ko fat ndax liggéey bëri bi nga xam ne liggéeyal na ko Serigne Touba loolu moo sabab ñu dikk fi tey jii ci turam dikkaale ki turu sa xarit directeur cabinet moom itam ngi leen nuyu bu baax di la di la sant di la gërëm moom itam doom la ci kër gi di doomi sëñ bi kon sëñ Cheikh loolu rek mooy kàddu yi dañ doon nemmeeku si rek waaye bu njëkkati moom wax nañu fi ñu toll fépp wax njàmbaar goo xamante ne bi administration bi njàmbaar nañ ko ci yëf waaye lépp lu ñu ko def rek ci digalu kilifa yooyu lañ ko kon ñoom tam ñu ñu ngi leen sant di leen di leen gërëm kon daal seen ñu ngi lay sant di la gërëm loolu rek ma nekkoon tànk yi jërëjëf laa ilaha illallah